Qui connaît l'effort et la patience connaîtra le succès. Amis internautes de Dental TV, bonsoir, bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver, également quel plaisir de venir vous servir, comme vous le savez toujours, DJ ici sur Dental TV, accompagné avec Tonto Wagan à la présentation, histoire de vous donner le ton actualité. Alors, dans Dental Activité, musique Sénégal. Alors, avant tout d'abord, permettez-moi ma nga xamné également baax a baax a baax alors di nuyu également nos hommes de l'ombre et ñi nga xam ne à l'instant yi na ñuy suivre à travers Dental TV dañ koy commencer ci actualité musique à savoir euh, gis nañ dispute bi nga xam ne amoon na keroog fële ci la 2STV à savoir euh, euh, Carlou D ak ki nga xamante ni moo di DJ Rakhou euh, sen mal euh, entente yi nga xamné ne euh, na polémique ci plateforme digitale yi gis nañ également dembu DJ Rakhou toog na sur la dosis TV di présente ses excuses excuses à carlo également di Carlo Karlodi mom carlo di la bëgg moo si tam bokk également je te suis DJ Rakhou également mi ngi woné ni jox artistes sénégalais yi fay artistes sénégalais yi ay millions moko gënal fay dërëm artistes yi nga xamné moy artiste euh, internationale alors Didier Raco ñu ngi koy félicité bu baax a baax a baax si euh, alors si vous avez ci loolu nous ñëw ci polémique bi nga entre euh, Thiat et ak Waly Blago Sek. je vous rappelle également un jour Tchad Sek, dafa wax et Blago Sek et je vous rappelle Wally daf ko mayoon benn auto mais du coup euh, Thiat dafa tok ci réseaux sociaux yi naan oto euh, bi ko Wally blago sek may baxul ba euh, sénégalais ñaawlu bu baax a baax li nga xamante modi argument yoyu Thiat sek wax journaux yi dal di ko reprendre également sur internet yi dal di ko reprendre en tout cas toute façon sénégalais yi ñu ngi won Thiat sek na Wally blago sek bu ko neexoon du la may oto gisuñu lu tax mu may la auto à part mbaa baaxaayam te auto bi mu la may baxul wax nga ko baaxul mais ba léegi ya ngi koy utiliser joxato ko wali Ballago Seck te wali aussi gis nañ sur sen mu ne carrément auto bi mu may Thiat Seck mom xamul sa nan la mel yaramam dafa tang rek mu àbbu caabi dal di ko jox euh, Thiat Seck alors euh, euh, buñ joge ci lolu dañuy ñew ci li nga xamanteni modi montre bobu wali Ballago Seck jënd à 500 millions montre bobu à l'instant ça fait le buzz sur les plateformes digitales à savoir TikTok Instagram WhatsApp Facebook également TikTok.

Euh, manam Omaro mom mi ngi don saga walé Ballago sec alors sénégalais nak nag c'est à vous de juger ñi ñu ngi wax lu positif ñi ñu ngi wax lu négatif mais Omaro instant bii nii bakkan bi walé Ballago sec la ko jox alors bu ñu ci lolu dañuy ñëw ci ben affaire bo xamné ne bëgg naa sax may scan ma taxaw fa touti té bëgg na tonton wagan may ñoy image moy walé Ballago sec son retrouvailles avec euh, euh, Soxna Aïdara c'est quelque chose bo xamné boko bu ko nit gisee force sa xol day neex alors si c'est calé waa xës yi tonton wagan may ma ma xooli Wally Ballago Seck ak ak Soxna Aïdara seen retrouvaille su dee da ngay laam laame sama bëggeel ku numéro demal fàññu ji su dee da ngay yaakaar ni yow rek a jooy kon xamoo

people bi ñëw foofu gayen Wally jël bal bi diko ko c'était cool en tout cas Wally blago Seck c'est le soir du peuple quoi qu'on puisse dire xamnañ ni sénégalais instant bii nii lañ jox bop alors buñ jógee ci lolu dañuy ñëw ci cas bi nga xamné dañuy ñëw ci cas bi nga xamné moy kaw Adamo Adamo nak kenn dootu ko présenté si plateforme digitale à travers TikTok également lako ko gars mais nak ay cas yi nga xamné mi ngi koy joxe moom nag euh, def na sortie bo xamné je pense très bien bokk na si ay euh, dernière sortie am di woné carrément bu ko nit ñi gisatul wala bu ko nit ñi dégatul euh, nañ japp né carrément mom Adamo amna na yaakaar day dugg prison mi ngi dalal xelu sénégalais néna mom moom sàccul mais limu gis japp na ni mom Adamo day dugg prison xamul nak durée bi peut-être six mois wala un an mingi wax mi ngi Sénégalais également mm, li tax mu dugg prison raison bi du wax kenn wala cause bi du wax kenn à part yayam yayam rek moy tax mom Adama lu tax mu digg prison à part yayam kenn du ko xam ndax loolu concerné wuñu mais mi ngi ñu yëgal ñun sénégalais yi moom Adamo incha allah day dugg prison fii ak deux ou trois heures xamuñ nag ban délit la def ndax Adamo ku ko xam xam ko si saaga Adamo ku ko xam xam ko si dévoiler secret jàmbur Adamo ku ko xam xam ko si wax actualité Sénégal et tout moom il est un peu partout et nulle part mais nag dernière sortie am bi tiital na ñi nga xam ay Adamo ndax na ni quelque temps moom euh, euh, liberté mais ni day dugg au présent euh, également ñu gis ki Aouz je sais pas euh, mom tamit tiktokeuse la bo xamné ne Adamo mos na ko fi saaga moom aussi gis nañ mu porter plainte Adamo on sait pas nak plainte am bi motax ñuy japp Adamo ou pas mais d'ici peu de temps buñ ci amé ay leeral dinañ ñëwaat fi ci Dental TV dal dinañ jox également lu ton ak actualité fi ci Dental TV alors euh, euh, juste ben information bo xamné ne dama ko jallalé également ki nga xamanteni modi euh c'est tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous à très bientôt, ici sur Dental TV. déjà comme à la présentation. Tonton wagamou, moi, les 4 rases. Tchang, tchang, bang, bang, let's go.